di leen baal àq di sant sunu borom moom mi nga xam ne moonu may kàttan dellusiwaat tey jàkkaarloo ak yéen comme ni ma ko defee woon rek El Hadj madam ak Ndiaye ak ki nga xam ni mooy Abdou dal mayoon congé ma dem fa nga xam mooy Europe daan sama doole waaw waa France maa ngi leen di gërëm ci nganale gi nga xam ne moom ngeen ma defal duran sama weekend moom fa passé tëgg fa Kër Samba ñëpp ñëw jàpp ci Amadou Ndiaye maa ngi lay ziar di la gërëm ak sa soxna ki nga xam ne mooy Sadio madam Ndiaye ak may mi nga xam ni moo nekk fële ca étoile d'Afrique waa Paris daal Alex Thiam ma leen a fay tey nag seen émission daf leen indil ñu mag a mag a mag ki may ci njëkk a wax mooy Galas Galas mi nga xam ni ah waykat bu mag la koo xam ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal beneen invité bi di Cheikh Sarr bu Zik FM waaye Cheikh Sarr bu Sen TV barki de moo njaay gis ngeen ko mu invité ma bi ma ñëwee ñoom laa njëkk a jàkkaar lool ñoom laa dalal tey nag fas yéene leen nag bégal ànd ceeg sama ñaari doom muy Gigi ak Umu Saw garas ñoo ngi ziar yéri nguni ma law be samay mbaay ku li mi gisi ngi ndaat ma faale ku ma naama tax sa maam yéri ngoni la sukaabe ngoni ma samba waaw jëri ngone loolu ndeysaan Pape Mbaye étincelle moo ko moom moom mi nga xam ne moom a ñawal yaa ngi lii ki nga xam ne nag moo ko jox muy Boubacar Yara borom boutique Jesner boutique moo def wifi bu bees bii sama doom ji sama rakk sama xarit sama mbokk taalibe koo xam ne maak moom li nu boole ci commun dafa bëri muy Cheikh Sarr Cheikh maa ngi lay ziar. maa lay fay salaam di nuyu euh, suma xarit Fallou di yu téléspectateur 2STV. di la ndokkeel tamit ci liggéey bu am solo bi nga xam yaa ngi koy def ci kër gi waaye dinaa la tooñ tuuti rek xam naa ni fan yi moom yéen musiciens yi li ngeen jël su dakkul ñun animateurs yi dañuy dem retraite ndax lan man nag maa ngi préparé temps yi sama bopp ngir dugg ci làmb ji ëpp naa def ah, ah fi mu toll nii kat yaa ngi bay jëy fay moom li ngeen bëgg a def temps yi ba pare macha allah suñu borom def ngeen mën ko trop xam ko donc ñun animateurs yi ci des nañu préparer suñu bopp. di préparer suñu retraite. man day ne woon naa la ca Zik FM. Mhm. lii du carrière. Mhm. bëgg leen a jàppale. Mhm. sotti ci ak def ci la. waaye yéen la ngeen di def. ah man day bërki démb. ban toogee laata ñu commencé wax naa la ko. ba ngeen da ngeen balance rek man leen vous êtes très professionnel. alhamdulilah kontaan nañ leen yàqu leen ko. dañ leen di jàppale. kenn yëpp lépp yéen la. ah lépp yéen léegi nag ñoo ngi ciy ànd ak tey sunu sponsor leader ndoxu waalo ak ak Sucette Bégé Galas tey damaa bëgg nga woy ngéwal Ndeye Marie Thiou ngi lay seetaan waa Sénégal ñëpp ñu nga lay seetaan. yéegal ca kaw. ma woon ak sama ñaari doom yi ñu ñëw toog Galas a ngoog ak groupe am Cheikh Sarr. Galas ndaanaan la de. ndaanaan kuli fadrin la. ndeysaan. waaw. te it il est très professionnel. il est venu avant l'heure waaw ndeysaan. di gërëm Lay Sarr di gërëm ki nga xam ne tamit mooy Sidi ak xale yi nga xam ne ñoo nekk 2STV kontaan naa lool émission bi yànj na ndeysaan sikkim riim yimbi muy seen maam yimbi seeni gombaay gombaay sambaay maamay samba ndey bira menda kombaay mi leski nii jibul bulu ngi ci ndaana soose ngi ci muslaay boy yaasin njilaan ndaak mbaay farse jumariim jimmi mooy seen maam jimmi seeni kombay kombay sambaay maamay samba nda ibrahim benda kombay mi deski nii jimbul bulangi ci laando soosee ngi jumbu sulay ay boy matar silla wuunaala serna kuli mi gise ginnaat ma faali kuma la ma dex bay sama de kay faatu mbaay ay seen yaay boy alaaji debba mbay muy sa baay ay faatu mbay sa yaay ay moodu mbay bekaay jiiri ngoni maalo be sa baay mbaay kuli mi gise ginnaat jiiri ngoni mbaay ma faali bu ma daama dex baay samaam jeeri goone baay baay baay ay jeeri goone baay woo naa leen biraan ay sa maam ay faatu yaay amut rey sa yaay siiri duudu janje ko biram yaa boy janjaraaf biram yaa boy janjaraaf bayi mariyamu mu ndaw bayam lu xuma duuday maam ndey faatu ndey faatu yaay maa gan na biraan mooy sa maam boy doo yaay oo naa la salaamaaleykum. bu jiital ni professionnalisme. te boo xoolee lépp looy def te amul professionnalisme doo ci mën a génn moom fàllu yàlla dafa def baatam dafa doon benn. dafa ràññeeku baatam bokkut ak benn baatu waykat ci réew mi. baatam dafa dafa ràññeeku. <laughs> ba pare mu am respect ba pare xam luy musique xam fi mu jóge xam tamit fu mu war a mën a jëmale muy musique bi hmm. lenn rek moom laay xaw di laaj toul le temps mooy tax lan mooy jafe-jafe fàllu hmm. ba léegi nii euh, jëlul place am carrément ci musique sénégalaise acca Cheikh Sarr maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax e boo ma laajee loolu dinaa ci sawar trop musique Sénégal dafa xaw metti hmm. dafa doy dafa metti parce que artiste bi produire boppam boo tukkee yaay yaay yóbbu sa bopp soo génnee kaset yow la mhm. du yomb nga percé mhm. mën nga am talent mun a way ñëpp di ko wax mais talent rek doyul il fallait gars yi jàpp ci pour ñu mun a dem parce que musique ku jàppale artiste musique nga jàppale te boo bëggee musique te mënoo jàppale artiste kon bëgg bi des na na gars yi na ci gars yi jàpp fépp fu ñu dem ci àdduna bi ñoo fa yóbbu suñu bopp lépp lu ñu génne ñoo ko génneel suñu bopp kon donc gars yi ñu si bu ñu si jàppoon mu avancé mais gars yi jàppuñu ci est-ce que créer nga proximité boobu parce que dafay am waykat yu bëri yoo xam ni wala boog ay nit yoo xam ne dañuy am talent mais mën naa ni seen euh, diisaay wala rëyaay mën na leen euh, xañ lu bëree bëree bëri est-ce que créer nga proximité boobu dem envers ñi nga xam ne ñoo ŋànk musique bi moo xam producteur la moo xam tamit koo xam ni yor na studio wala lu mu ci mën a doon est-ce que proximité boobu euh, créer nga ko. waaw Cheikh man damay dem fépp bu ma xam-xam ne Baye Fall ñëpp sumay xarit damay dem si gaa yëpp barki dem rek si studio Papis Ndiaye lañ jóge sant bu baax. ah Papis Konaté xamante nañ. Mhm. album bi ma njëkk a def moo ko def. maa ngi dem si gaa yëpp Youssou Ndour waxi noppi way nañ ko morceau boo xam ne Sénégal yëpp moom lañ doon waxtaanee muy càppaacoleem bi ñu reprendre mhm. way ko ci lu kon donc amuñu kenn ku ñu amal xarma yàlla ñëpp suñuy xarit lañ. Mhm. mais nag mënuloo tamit nekk musicien nekk waykat am lu nekk sa bopp. nga ne kaay leen defal ma nangam kaay leen defal ma nangam loolu mënul nekk di nga dem si ñëpp mm-hmm. mais mënoo foo toll di dem si nit ñi di leen wax ne nangam laa bëgg mm-hmm. mais boobu bu fekkee defuñ dara nga noog ñafeel sa bopp mm-hmm. mën naa am dinañ am benn jour boo xam ne li ñu soxla yëpp dinañ ko am parce que ñu ngi waajal te ñu ngi def ay pour ñu ngi def ay programme fuñ tollu ñu ngi dem ci ñu ngi dem Europe ñu ngi dem fépp ci àdduna bi ñu ngi def ay programme yu mag même 31 décembre bi rek ñu ngi war a def ci esplanade ñaar tali bi concert bu mag live ak Modou Mbaye Modou Mbaye bu 2STV lañ ci war a sargal ak Djibi Wade bi nga xam ne dafa dégg daal yi mooy maire de la commune de Biscuiterie mhm. nekk président ASC mhm. ñaar tali ñaari tali RGB di ko baax eh, wax dëgg yàlla ñu ngi ci ay affaires yu bari projet yu bëree bëri mais nag na ci yi teg loxo rek mm. na ciy jàpp rek yow nga jàpp ci yaa ngi ci milieu bi yow boo ci tegee loxo sax dana dem yow Cheikh ndax ñu ngi ciy teg xeebuñu la ci mm, mm, gën ci sàppali ndax yaa ngi ciy teg loxo yaa ngi teg bagage yaa ngi def lépp mais gën ci jàpp rek incha yow borom baax nga bàyyi fal nga ndax amuloo xaaj ak seet ci benn artiste xam nañ loolu ci yow hmm. grand bi toog muy salaam tey bu ma ñëwee fii damay rafetlu teew bu ma fi teew ndax du tey la ko def mun naa ne bokk nañu ci gone yi njëkk a woy ci orchestre fii ci Sénégal tey bokk nañ ci ñi mu njëkk a defal teraanga Sénégal kon du demee am émission télé bu toll nii di la woone la kaay pour gën la wone loolu ñun dañuy kontaan ci moom tamit di ko delloo wàccuwaayam. Mhm. te du man rek la ko defal ndax ñuy bëgg a yàgg macha ci aar bi xam nañu fii xale bu fi woy rek. Mhm. jaar nga ci orchestre salaam wala mu def kaset boole la ci wala mu def nangam ak nangam wone la. du loolu man maa koy dëggal ndax euh, salaam Diallo mën naa ni dafa am ñetti nit ñoo xam ni. ci wàllu musique sénégalaise mën naa ni escalier lañ ñu bëri fa lañ jaar ñu tett leen ñu jàll ku ci mel na Lamine Faye ku ci mel na Salam Diallo ku ci mel na tamit fallu Dieng ñett ñooñu bëri na ci ay ndaw yoo xam ne dégg nañ leen ràññale leen ci wàllu musique moo xam ci fecc ci way jaar nañu ci ñoom ñu tegal leen escalier ñu jàll mais euh, tey musique sénégalaise fi mu toll fallu tey boo doon wax ni muy sooxee nan nga ñu ko mën a waxee ak nan lañu mën a def ba musique sénégalaise propulsée gën a mën a ñoŋ ci ñëpp nag. moo xam ci Sénégal. ak bitim réew. man dama jàpp ne musique bi ñuy promovoir musique bi ñuy promouvoir léegi moo dul musique bu Sénégal mbalax bi ñuy def muy muy suñu mbalax façon bi ñu koy defee bu ñu xooloon ci grand yi fi njëkkat jaar façon bi ñu doon musique ak léegi ñun ni ñuy defee du benn. Mhm. loolu moo gën a sooxeel musique senegal ndax lu fi génn trois mois lay am dootoo ko déggaat. Mhm. lépp rythme la ñu ne ambiance karab karab wax yuuxu <laughs> loolu du musique wax na dëgg de parce que booy copier dangay ngay loo xam ne lu baax la mhm. grand yi ba léegi nii li ñu woyoon mhm. ba tey amuñu relève bu ko mën a dindi te du yoon dégg naa dëgg de dëgg la dégg naa dëgg de ñu woyoon bu njëkk ba tey ñoom Youssou Ndour Souleymane fay xam mënu ma lim su ma limee Thione Seck Baaba Maal Omar Pène ba tey amuñu relève parce que musique bi gars yi di musique léegi pour man baaxul. ah parce que y' a pas de loolu moo tax. Hmm. y' a de recherche waaw du leneen amul leneen. y' a pas de recherche. amul loo mun international sur le plan national dañ koy consommer ñaari fan ñett mu jeex kon war nañ xoolaat bu baax musique bi ñuy def. su ma jàppee tënk ko dafay doon euh, ñaari xeetu musique yoo xam ni moo bëri léegi ci Sénégal mu di musique à jeter musique bi nga xam ni trois mois lay def dee. Mm-hmm. ak tagg musical. Mm-hmm. maanaam Massamba Ndiaye <laughs> Fatou njaay Omar njaay euh, way bi la plupart dafay xaw di caduc li ci ëpp mhm. mooy que ne amul texte mhm. comme ni ko Thione Seck daan defee mhm. ni ko Baaba Maal daan defee Ismaïla Lo Youssou Ndour di way way yoo xam ne dafay durer donc dafay am durée indéterminée fi ba àdduna tukki boo ko tegee da nekk dama lay dof foofu seex dama def euh, benn album mu génn en way si wayaan si way si lu nekk ma def benn morceau kese muy Saara Bara Mbay nit a ngi lay reetaan bëggu la su du loon pexe noonu ànd yëpp neex mu nekk texte mu yóbbu ma fépp ci àdduna bi ma dëggal li ngay wax ne texte mm-hmm. ak thème mooy musique mm-hmm. su amul tuuti ci musique rek musique amul mm-hmm. bu amatul ci musique rek musique amul. et puis Cheikh. Euh, yow mën nga ma laaj ah parce que actuellement yow yaa animateur bi. man je toujours un artiste. Ah, bu la ma jàppale comme animateur. non non sama plateau la mais lii la loolu tax chaque fois damay teg fii koo xam dafa def rajo wala télé di laaj di laaj di laajaat. loolu dama la ci tontu recherche musicale aussi amatul ci musique bu njëkkoon Lamine Faye day teg ataaya ñu def atelier atelier maanaam guitariste ki nga xam ne mooy joué ñi am daal instrument yi. ñoom ñooy njëkk a joué xool ligne yi xool mélodie yi xool lépp bu nu paree. doog a woo sabarkat yi ak awukat yi donc recherche boobu léegi moom moo amatul. amatul te xale yi aussi danoo ragal joué mu am vingt wala dix personnes loolu ku ci jaarul ku ci jaarul yaa ngi tricher. parce que dafa am loo xam ne danga koy liggéey pour nga am public. da ngay tëgg di am cinq dix ba vingt ba cent loolu lu ñuy liggéey la. waaye boo tëggee soirée jënd billet ya dem jox sa ay géer ñu jëndal la nga dem may waa mbedd ma. Ah, mais loolu tricherie la. dëgg la mais mais mais salaam dafa am euh, ñaari erreur yu ma gis xam bi ma waxee ci euh, musique à jeter. Mm. ak tàgg musical. dafa am ñaari album yoo xam ni man bëgg naa ngi expliquer ma. Mm-hmm. album national ak album international lan moo waral album national ak album international waaw xam nga gars da naan album national mooy mbalax pur et dur international ñu def ko li nga xam ni peut-être mooy acoustique wala yoo xam ni pour essayer d'approcher les Européens wala les Américains mais moi je dis que déedéet li nga mën a exporter mooy li nga moom mm. sabar yi mënoo ko génn ci musique sénégalaise parce que boo teggi woon sabar bi tey kii nga xam ni moo yor marimba bi la muy def mbalax la te ka nga xam ne mooy jouer guitare la muy jouer ci ay sonorités africaines traditionnelles sénégalaises la koy def donc y a pas de différence. dëgg la man nag li ma gëm. mooy spectacle. surtout man du ci man basé wu ma ci ay ay maanaam ay génne album bañ naa ko ba studio mën ma man li ma mën ñu un deux trois gars yi ma doxal ci kaw. doxal ci kaw man loolu laa man waaw parce que loolu Fall bëggoon naa ci wax tuuti parce que Sénégal eh, dañu am tendance di wax naan. Euh, sama album international dina génn ci at mi wala sama album national parce que musique dañu ne la musique n'a pas de frontière kon soo national yaa ngi koy wutal frontière donc album bi nga génnee war nga ko mën a jaay fu ne ci àdduna pour mën a atteindre li nga xam ne mooy objectif objectif bi mooy am ay distinction mhm. salaam dañu gis ne jamono yi ñu nekkoon ba léegi nii dañu gëj sax dégg artiste bi am na disque d'or wala lan mooy jafe-jafe Sénégal mhm. ba léegi disque door mënatul am Sénégal Afrique sax tuñ ko ci gis. lan mooy jafe-jafe boobu. parce que amuñu maison de disque yi ñuy wax des fois nga dégg nit ni signé naa ak diw mais après doo gis aboutissement doo xam fan la yem parce que tricherie bi da dafa dafa war a génn ci Sénégal. Mhm. maanaam ci sunu showbiz bi y' a trop de tricherie y' a des non-dits te boo waxee ñu ñu am ful la dëkkal. mais mais non-dits yooyu wax ma. Eh, la muy tricherie bi. mooy loolu li tax tey déggoo bi disque platine door te toujours yaa ngi dégg ñu naan diw signé na fan lan signé ngeen waxante dëgg fan lan signé mbaadu mbaadu gars yi des fois dañuy def distinction distinction quatre personnes woo sa juróom-ñaari nit ñu toog ñu ne diw am na distinction sàngam meilleur nangam nangam. bu ñu ñëwee ñu dem Europe gis benn waa joo xam ne day taxale ci benn studio ñu taxaw ne ñu ne ñu ne ñu ne label la. Ah. te même boo duggee ci internet bi dugg Google label boobu Google sax reconnaître ko. Ah, kon donc te lay doon. ma ngoog maa ngi dégg barki démb Youssou Ndour di wax naan musique ku ko fooy mu fooyal. Ah, jërëjëf yow loolu looñ ci mën a wax. gis nga loolu dama la ciy may rek. ci sabar yi ñuy tëgg nii. Mhm. dafa am pa ñoom pa Wieseng ñoom pa ndeysaan Euh, papa yi ñoom mut sekk sabar bi ah, ak ñoom Matar bay pa Matar Mbay da jël sa tànk te sabar teg sa tànk mbaa nga jël galañ di ko fowe parce que loolu tey moo la jox looy lekk moo la jox looy naan xam nga tey Macky Sall du nangu nga ñëw biiram di ko seet si jël sa tànk teg ka taw taabalam mm-hmm. parce que yaa ngi koy foye li nga xam ni moo lay jox teraanga da nga koy fonk bi ma fi ñëw doon wax taasu affaire jigéen la affaire góor jigéen la góor buy kii mais tey bi ma ko gëmee lu ne dégg naa ko. mais macha allah tey ci laa créé xale yu bëri ba tey ñu yor seen njaboot. donc nit ki caaf sax ñu jaay caaf yamu ma leen de caaf sax boo koy jaay da ko war a jaay ci fulla ak fayda. la salaam euh, xam naa ne yow sa cursus ci musique doy na artiste bu bëri mu xool ko jàng ko. Salam Diallo ci débutam. fecc la daan def jékki-jékki mu nekk di musique mhm. jékki-jékki mu nekk tey présentateur du télé mun nañ ko wax mhm. li nga dégg lépp ak li nga jànkonteel lan moo la forger ba tey salaam doon li mu doon salaam wax ñu guddi yu metti yoon ya guddi yu taroon ya guddi yi nga xam ne danga nga wéetoon yow ak yàlla rek la woon mhm. nett lu ñu tuuti ci jaar-jaar yooyu ak métti yooyu nga dund beeg si fi tey xam nga nit ko ko nekk ak li nga xam ne xamoo ko mooy li ma la wax bërki démb bi nekkee seen TV euh, ngëm dafa am solo maanaam il faut avoir la foi en Dieu nit da ngay am loo gëm nit da ngay bëgg maanaam boo jàppee ci dara muy ndey di baay di ñëpp bu la jàppalee ñaanal la xaman yow tôt ou li nga bëgg yàlla dala koy may nit ñi nag ñoo moom seen bopp ñoo moom seen i télé ñoo moom seen i rajo ñoo moom seen téléphone ku lu ci jugé bàyyi ko ak yàlla tôt ou tard la vérité finira par vaincre man du ma def dara pour wut ay fans du ma def dara pour wut nit bëgg ma wala neex ma man yàlla laa bàyyi sama lépp loolu képp koo xam ne da nga ci jàpp incha allah kenn du la téye ba ci Youssou Ndour mi lu ne dégg na ko mhm. Thione Seck Omar Pène ku ci nekk am na oh. foo xam ne jaar nga fa balaa mu ne nux nux il faut mu ne nax naax mhm. loolu dafa am solo fàllu ci ñi koy ngurum ngurumee ba sa wax jàggi commencé jëm kaw ñu ne artist bu amul tele amoo rajo amoo animateur doo fël <laughs> loolu loo ñu ci mën a tëggal doy na waar ah. waxal de. xam nga lu tax nit ñi di wax loolu dafay mel ni dëgg aussi parce que pour ñu teg la télé wala ñu teg la rajo faaw nga mu fa ndey wala baay pour ñu teg la télé wala ñu teg la rajo parce que man maa ngi si presque daanaka xanaa neuf clip. su ma ko waxee nii ci télé bi ni ñu dañuy xool naan waa nu mu demee noonu neuf clip fàllu nan la mun a amee neuf clip def douze single def douze single douze single nga def ko def album am neuf clip te am na ñoo xam ne boo ne leen fàllu ñu ne xaw ma ko ndox waalo ndox ngi nii waay yaa ko moom sama ndox la moom ndox waalo dafa xew dafa xew ñëpp di jëfandikoo balaa may continuer seex si loolu mm-hmm. danga may baal ma tuuti rek ma jaale suma xarit bi nga xam dafa bokk suma staff mm-hmm. muy Pape Samba dëkk Sicap waa NGB maa ngi koy jaare ñëpp waa Sicap muy yaayam génn àdduna léegi si bëccëg mu waroon ànd man ñëw fii mm-hmm. waaye loolu nekk mbir mu tiis waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam dëgg la di ko jaale maam seex Diagne yàlla na ko yàlla xare àjjana ak ku fa fekk ak ñi ko fekk ñëpp barki Seydina Mohamed barki galas gars yi nee na nga dem ci kanam. waaw man dama bëgg Cheikh man dama bëggoon pour nga may ñu nit ngi lay reetaan. mën na ne. boobu neex na. Ah. waaw waaw mën na ne may ñu ko. ma woo sama ñaari doom yi ñoom tam ñu ñëw màbbal kër gi. ñoom kii gi ak ah, Umu Saw sama xarit kii gi ak Umu Saw. morso boobu morso boobu honneur la woon. rajo Ndeye Sarr napp la woon. morso boobu dugg na ko. mais Laye Sarr. Euh, Laye Cheikh wa nga dégg de euh, kii euh, Cheikh Sarr. ñaata laa mën a fay pour fauteuil bi nga moom ko. ba man asalaam bàyyi ma fee billaay soo xoolee. lii ma dal waaw. ma gis su mit lool daf may soo xoolee. li ma yem léegi. li xale yi bëggee daf ma jaaxal lool. Cheikh Sarr li ma du gëstu itti lool daf lay soor nit lay reetaan bëggu la ba ñu ni weex weex déedéet ko lal bu dul woon ak pexe noon ànd yëpp ay neex ñaar bu ñu àndatee bu ñu déglu waxi noon waxal ak sa waay nga réew mu réew génnee sa noon waxtaan tàggoo ñëwoon te fii rek lay xew waxal ak sa waay nga ree mu ree mu génnee mooy sama illallah la andara sarabaraba totbaru gas du sotti suukar sarabaraba ak moo ko ñamal du ko yàppi daa galas lay saar nag tey moom dama lay xoj damaa bëgg mm-hmm. sama xale jigéen yi mm-hmm. ñëw ndax damaa bëgg ñoom dañuy fecc dañuy lëmbal te day def yëf <laughs> umu saw ñëwal gigi ñëwal ndax li ma dese bëriwul mm-hmm. gars yi dañuy dugg direct fa fi mu nekk ni damaa bëgg xale yëngu bàyyi tama nuyu ma waay nuyu ma waay nuyu ma waay borom tama bi nee na mi ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur sa sant borom taw bi nee na bu subaa incha allah na ñëpp añee ceeb bu weex ba am suul añ ba géej. jox na. waaw. may ma def ah kenn day am ah, ma jega may sa joom bay ay ful la daan di jaar Oumou Sow ma ñëw ma ñëw xanaa ñu bàyyi leen ñu nuyu ak yi bu ñu daal di ràcc Oumou waaw macha allah jàll jéeri ñu ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp wax ne nag dañoo ñëw duggee tàng show mhm. moo ñu ko jalis comme moo ñu ko jalis micro bi mhm. ak Cheikh Saare ndeysaan kan lañ ci jox micro ci ñoom ñaar Oumou Sow wala Guigui sama sister ndeysaan waaw Salam Diallo ñu ngi kontaan bu baax ci accueil bi que Salam moom euh, ñun xamuñu woon ne nii lay deme à show salaam Diallo moo ñu ko jalis gigi ñu ñëw tey rek ñëw indi suñuy feem duggaaleeg yu baax mm. di mu nuyu nag mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp fekk fi saareen bu mag bi animateur bu mag bi ci Ndakaaru ànd ak ki nga xam ne nag ah soirée sénégalaise nag moo ko moom de salaam Diallo tey bu ma jalgatee tey tollu fii ma toll ci sama carrière daf cee participer Diallo jéeri ñu ngi lay siyaar ànd ak gigi la star ndeysaan Umu Sow ndeysaan gigi waaw maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi toog tey loo ñu xaar boobu ba léegi ñu ngi nii nag Kër Salaam dal si nañu euh, colis yi xaw nañ ko toj nag waaw macha allah suñu frère bi li muy woy dafa am solo. Mhm. dafa neex donc maa ngi nuyu waa Sénégal euh, di nuyu waa Grand Yoff di nuyu waa TMC mi nga xamante ne foofu la ñu jógee ñoom ñoo ñu defar ba ñu yàññ nii ne salaam ku koy seeti da war a am noo mel parce que macha allah salaam dafa bëgg lu baax. rawatina nag sama frère de cœur sama doomu baay kooku sama xol laa ko def muy Cheikh Sarr borom kër Momar Sarr. waaw <laughs> waaye yow lu boo solee lii léegi le 25 décembre yow looy sol kon. moom laa bëgg waaw lii mooy lii mooy xàppi. sàmm <laughs> sama laaj. baal ma baal ma. <laughs> waa xam nga gi gi moom ku ko xam. xam nga ko aussi si mode. donc mën naa ne sax nit ñi sama image la ñu gën a jàpp sax que euh, gi. Mhm. donc euh, ñi demoon euh, Paris. def benn wéy maag Oumou Sow dem clibé ko Paris tuddee ko xàppi comme man dama nekk ci mode te créé naa sama marque muy la marque gi donc moo tax ma ne damay créé waale tubay xàppi. parce que nit ñi dañoo war reetaan gisoo lii nu muy safee bëñ nii bëñ. waaw yéen gémmiñ gi ay bëñ. Adja Adja Gueye Dabaax. Adja Gueye Dabaax gigi lay waxal. gigi yow lay waxal Adja Gueye Dabaax ak Kole gigi yéen lay waxal. voilà donc xàppi mi ngi nii. Mhm. baa ngi nii bëñ yaa ngi nii. Mhm. xàppi rek. man man li ma leen di laaj mooy diggante euh, Oumou Sow ak Guigui rencontre bi nan la demee sensation bi euh, kii da doon fecc jékki-jékki musique kee rap la doon def jékki-jékki dugal ci tuuti mbalax Euh, rencontre bi yéen ñaar naka la demee ak ku ko dox ba ngeen nekk di ànd. waaw umu euh, ñi ngi daje Honglerie euh, des VIP muy nuyu ko moom ma koy nuyu de passage sànq sax mi ngi ñu doon woo nañu bu leen tardé de <laughs> ku baax si ñun vraiment ma demoon fa mu sponsorisé ma woon bi ma doog a génn ma daje fa ak Umu mu ñàkk ki ñaanaa parce que bi may doog a génn mois de mars avril laa xam oncle des VIP ma dem fa euh, Oumou Sow artiste la bu mag ma dama dama doon nekk xale bëggoon ko. Mhm. vraiment ba léegi sax moo tax ñu mën a ànd. donc ma dugg si rek mu ne kii kàll Rihanna Sénégal Cheikh Sarr. Mhm. loolu dafa maa marqué. loolu dafa rëy. Oumou tey su ma tëddoon fii mu may dóor du ma wax. Oh. ndax da ngay daje ak ay nit ñi xam la daje di la ignoré mais boobu un mois de carrière laa la wax te boobu dama doon sax làqatu sama premier clip bi comme dama nekkoon di liggéey. donc sama premier clip bi dama doon masque wu soo gisee bu mu kenn xàmmee ma mhm. mais moom mu jeex na ba xàmmee ma dugg si mu ne kii du Rihanna Sénégal mhm. ba pare ne ma nag euh, sa album sa clip man maa lay solal dem ba États-Unis indi fa ay yére jox ma boobu ba tey loxoom dañu ci man par Paris man maa ko invité ci son bi euh, ne ko dañuy clip bi ñu demee hôtel ba damay fay mu ne ma gii gi xaaf xaaf lañ koy def da ngay def moitié ma def moitié te xam nga macha allah duñu duñu clipé hôtel bu ndaw donc man j'avais umu ne ma jamais sama yaram daw xam parce que xaw ma poche am fan la toll man euh, préparé woon naa loolu. Mhm. mais moom pare wu ko. mu ne moom mooy fay moitié cinq nuitées man ma fay cinq nuitées donc ku ñàkk ki ñaan non man soo wax si umu sax. gis naa bët yaa ngi tooy bët yaa ngi taa macha allah umu saw loo ñu mën a dollil ci gigi lim la seedeel nii. ak seen rencontre nan la demee noo ko sentiree ba ngeen àndandoo yéen ñaar defa defagoo ngeen gum lu mën naa ne ñaari single. waaw def nañ ñaari single. Mhm. Euh, Guigui dama koy bàyyi ak Jésus ndax yonent bi sallallahu alayhi man moom laa bëgg moom laay bége moom Jésus lay ak Mariama dañoo ànd ci foi ànd ci sincérité ànd ci loo xam ne lu ko metti su ma ko waxee ma ne ko defeel nii waxeel nii moom it mu nekk xale boo xam ne dafa ñëw yokkati sama carrière. Mhm. ku ne xam na ne dama daan taasu jàngee ko ci ñoom salaam et mais dafa ñëw boole ma ak ay professionnels yu nekk Allemagne. ne ma nañ travaillé waat sama voix son bi ñuy def doo ci taasu da ngay way ba pare nag nee na léegi mooy sama productrice. Mhm. léegi daf may defal quatre so te ci. Eh, xaalisu boppam kii mënuma ko fay kii suñu waxee man maa ko gën a gaaw bu ma jooyee fii. Mhm. fii dina metti de ah, ba dañuy delluwaat nawet. kii damaa bëgg waa Sénégal yëpp ñaanal ko même sama carrière man bu arrêté ci aar. Mhm. man dinaa ko épauler. kii dama pare jàppale ko ba ici repose en paix yàlla na yeex barki Sëriñ Fall mais mais mais euh, dama gis bu dee dama gis. Euh, clip yi dafay nekk clip yu foor ci ay barab yu foor waaye tamit ak ay ndaanaan ñoo koy def à part musique yéen demu leen grand théâtre yéen demu leen Sorano yéen demu leen Bercy benn moyen bi ngeen am ko mbaa du dafa ay ndaanaan ñoo seen ginnaaw te yëguñu ko leeral leen ma loolu xam nga jamono bi ñu nekk dama ne képp kuy def aar na ko boole ak métier démb rek sama interview wax naa ko su fekkee kii mi ngi nekk ci mode bi man maa ngi def sama art boole kook sama métier ba nii nii ni sama oto sax boo demee fekk nga fa ay pull ak ay blouson yii nii ma ma pare ambulant laay defi almadeg ci xale yu baax yi mhm. kon nit da ngay góorgóorlu ci sa aar waaye boole ceeg jom ndax Papis Konaté ku ne xam ne ne chaque jour maa yëkkati sama xaalis di ko jox mu may produire gis nga nag son bu baax boo ko bëggee da ngay ut ay professionnel fay leen lu baax ñu defal la son bu baax clip bu baax tamit noonu kii lu ma bëgg a def mu ne ma umu bul ko def maa koy def ma ne ko noonu ma la seetaan parce que gigi des fois day jékki-jékki yëkkati benn 1 million teg ko ne ma umu lii la ma ne ko gi mënoo jël lépp def ko ci aar te l'art nourrit son homme dëgg la mais jamono toll na foo xam ne looy def da nga koy def ak calcul noonu laa defanteeg moom ñu dem milliard ma jàng ni hmm? c'est bi góor ñi jànkonteel jigéen ñi jànkonteel ndax ñi ñi wax problème ah. un million te fi mu nekk nii ñoom galas amuñu sax ku leen produit nday mari cuun nday mari euh, nee na mi ngi lay seetaan mi ngi koy dédicacé moom tam umu saw ak ay xaritam nekk ca jidda Ndeye Fatou Mbuub Awa Mbaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di seetaan kon yéen problème euh, Cheikh dafa mel ni problème boobu ñoom amuñu ko non ñoom amuñu problème moom laa lay laaj parce que léegi galas Oumou muy def euh, man bëggoon naa xam leneen lu muy def lu musique Guigui ci banque lay liggéeyee ba léegi ne mi ngi ci banque waaw ci banque laa nekkoon mais xam nga euh, musique bi dafa dem ba dox macha allah damay sant yàlla parce que bàyyi banque ba waaw démissionné naa bàyyi na maa ngi ñibbi déet déet salaam toogal rek bul yàq kër gi banque toogal bul yàq banque laa lay tegal lii de. salaam xam nga salaam. Hmm. dafa am loo xamante ne ndeysaan ba léegi sax daf ma koy wax euh, directeur suñu école bi ma nekkoon ISM fa amee sama licence amee aussi sama master donc moom première année daf ma ne moi je ne forme pas des employés je forme des employeurs donc ma jàng vraiment am sama master ibbi sama agence de communication mu ñu woowee G plus hmm. donc si agence boobu euh, damay def tout ce qui est communication consulting damay def décoration intérieure extérieure donc yéen mii di xool samay statut di ngeen gis li may liggéey mhm. donc en même temps aussi sama marque bi euh, ñu bëri di ci liggéey damay sant yàlla bu baax parce que mhm. yaakaaruma woon ne dina teel a sottee nii damay sant yàlla bu baax a baax mhm. di wax rek ne xale bàyyiwuma sama sama jàng euh, nag musique parce que li ñuy wax rek musique euh, neex na trop mais ñëpp xam nañ ne musique sénégalaise doxul. Mhm. man sooy xool euh, sama chargé de communication bi ma ànd sax junior maa ko doon wax. mu gis li ma dépensé yëpp. ma ne ko lii yëpp de G plus moo ko waral parce que dama mhm. liggéey pour musique bi. Mhm. ñaan yàlla ëllëg musique fay. donc nit ñi nañu ñaanal Cheikh saa dama bëgg nit ñi ñaanal ñu. nit ñi euh, euh, bàyyi ñoog suñu xel bàyyi ñoog suñu ànd. ku ñu mënul fekk si ci lu ñu bëgg hmm. nga la toogal seetaan ah en tout cas Sénégal moom dañoo gaaw ci yàq diggante bu rafet donc parce que dañ ci sonn dañ ci sonn Cheikh Sarr man hmm. album bi euh, mës naa seetaan salaam boobu maa gën a nekk xale muy def benn émission ne album dépensé na ci cinq millions hmm. xam nga xale ma ne cinq ci album mais man sama album bi mënu ma wax lu ma ci dépensé Cheikh Sarr ah parce que waa gis nga dem ay Allemagne dikkaat mais mais mais bëggoon naa xam lan moo la inspiré la plupart ci artistes yi nay fii Sénégal lépp fi lañ koy defee parce que lépp am na fi bu fekkente ni si ingénieur de son am na yu fi am bu fekkee musicien am na yu fi am lan moo inspiré à ce que Guigui mu transporter musique bi dem ay Berlin mu jaral ko mu dem France mu jaral ko mu dem Italie gëstu lan ngay visionné lan mooy problème bi. waa xam nga li nga wax yëpp dëgg la yàlla dafa def sama premier album xam nga rêve rek moo tax nit ñi euh, dañ dañ leen bàyyi ñu rêver en fait xale da nga koy bàyyi mu rêver xale du la wax rêve am man tey ku ma waxoon ne bés dina a ñëw may ànd ak Oumou Sow guddeeg bëccëg duma ko gëm ku ma waxoon ne ba na ma sa ñëw ma toog a papa salaam duma ko gëm yow Cheikh Sarr dama doom nekk xale di la déglu ngay wax lu am solo <laughs> may nekk sama bureau di la déglu ngay wax tey su ma waxoon ne tey dinañ dem bay doomu bàyyante foo toll ci rajo bi di ma noddu papa salaam aussi même chose donc duma ko gëm moo tax ma dama doom ne sama deuxième album incha allah extérieur laa koy defee loolu yëpp rêve xale la woon yàlla def mu sotti mu yomb ba dee loo loo def ko après yaa ngi ci yeneen ambition da nga koy dépasser en même temps aussi li ma gën a nag poussé mooy récemment j'ai perdu mon père yal na ko yàlla yërëm donc euh, xajatuma woon Sénégal en fait parce que fu ma tourné image dama ko doon gis comme j'avais eu le projet vraiment d'aller au niveau de l'international def sama album donc ma ne naa ci profité waale peut-être dina ma libéré loolu moom a gën a poussé effectivement ma dem euh, Allemagne mm-hmm. dem euh, France dem Suisse ak Italie bi nga doon wax Euh, am fa ay contacts yu baax vraiment parce que Allemagne yàgg naa fa jouer euh, Norvège yàgg naa fa jouer damay jouer ay festival foofu donc ma xaama dem def ko ci kaw loolu nag comme man umu duma ko bàyyi ginnaaw mhm. bi ma demee gis studio bi baax na donc ma ne umu dinañ def xàppi mhm. mooy bi war a génn la 14 xàppi bi jot naa ko mu ne ma gigi bàyyi may taasu rek bàyyi may taasu ak ñaw yi ak cuuraay man bàyyi ma jaay bi rek ma ne ko non man man man xàppi bi xàppi bi xàppi bi umu sow daf ma cee bett dama déglu son bi ba ci tey ci suba laa ko mujj dégluwaat Moussa yow ndekete yow daal gangster nga quoi yow yow bu la yow lu la neex def bu la neexee taasu bu la neexee rap dégg naa nga ciy touché kan mu lan moo lay inspiré à que ba nga dugg noonu touché ci gis bandi bandi lu ci lool lool loolu lan la umoo. donc non Cheikh Sarr euh, bi. bëggal hmm. ki la bëgg ngir bëgg. waaw bëggal ki la bëgg. ngir ki la bëgg nga bëgg ki la bañ ngir ki la bëgg. ngir ki la bëgg. Mhm. dafa riche. Mm. Oh, waaw <laughs> man damaa bëgg Cheikh Sarr ci côté boobu ba tax na li ma inspiré mooy gi dafa ma jàppale sama carrière parce que moom moo dem ñu travaillé sama voix presque un mois ñu ne ma fii ngay waxee ni ñu ko bëggee nga koy defee bu ma indee style tas ñu ne ma umu saw ñun gis nañu di nga dem sax ba bàyyi loolu nekk ci li parce que sa style ca la gën a ànd. da nga jàngat quoi jàngat. waaw. li ku ma gis yaakaar ne maa fi chef wax ci du neex man maa ko def ñàkk foo wéeru wéeru samay xeef weer bu dee su fay jotee salaam nga daw ñibbi dëgg loolu nga fay ñu tey suba nga fuy di alu fii salaam dama bëgg happy yeah dooma tere happy yeah dama bëgg happy cheikh ah. dooma tere happy cheikh move to the to the right tonight. I hate to don't talk to me. Happy time right with me. Yeah, yeah. Let's happy sorry free. Happy changer vie. Happy fantasy. Hey, dama bëgg happy. Yeah. Dama tere happy. <laughs> galas waaye tàccu leen waaye li neex na émission bu mel nii dafa naa mos fee am ah. li ñu li ñu métti rek mooy waxtu wi daf ñuy xaj ñoo xoj ñoo ngi gërëm sunu xarit mm. Mohamed Abdallah Thiam oh. mi nga xam ni moo moom fondation Kër Rasoul Cheikh Mohamed Abdallah caam waa moom mi nga xam ni moo bindi livre boobu 750 xasida dëjee ko à Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baax man gàmmu gi li ma fi fekkul daf ma metti waaye dégg naa lu ne def na ko yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay mhm. xanaa nga jël ñu dernier morceau ndax wax ci daf ñu waxkat la waaw salaam balaa may commencer morceau bi rek damay gàttal wax ji rek waaw damay nuyu bu baax a baax waa NGB ñaari tali Grand Dakar benn tali waagu ñaar asalem 1 ba 6 ak waa Sicap ndeysaan ak waa xombal sama dëkk ndeysaan di leen nuyu bu baax a baax di leen wax rek ne leen 31 décembre seen bis la muy ci esplanade ñaar tali bi yow yow ngay suñu invité d'honneur nag. damay mais yàlla dogal nga war a dem Canada joué ji. Canada incha aussi du tere ñu wax loolu. Ndeye Marie dina ñëw Mamadou Lamine dina dina ñëw te benn la Malick dina ñëw. te sama loxo dina ñëw te sa loxo dina ñëw incha allah rabbi <laughs> di wax rek ne artistes yi fa dëkk yi artistes yi dëkk secteur muy suñuy rakk invité na artistes yëpp invité Tarba suñu rakk. Tarba Mbaye Abdou Galas waaw di invité Galas Bongo xale yëpp ñoom Vieux ñaa ñoom ñëpp invité nañ ba pare nag boole ko invité ñoom Sidi Diop booy yëpp invité nañ leen. ak Pape Diouf. Pape Diouf Pape Diouf moom sunu Pape Diouf la. waaw Pape Diouf di ko nuyu bu baax a baax. Waly Ballago Seck balaa mu dem sama grand mu jaar bëgg ma lool. balaa moo dem grand wax na ma ne ma balaa moo dem grand théâtre fa lay jaar koy defee Pape Diouf nee tam dama fay jaar jeex na ndax yow galas ñun ñëpp suñu xarit nga acca galas nga neexul acca amoo micro dinañ ko wax léegi nii waaw Cheikh Tidiane Ba sa xarit waaw ndeysaan ñu ngi lay defal micro waaye dinañ la ko waxal léegi boo takkee sa micro galas fi mu ne yow la ñuy déglu ndeysaan di ci gërëm ki nga xam ne mooy yaay saw madame Jaxate ñoo ngi la koy may yaay saw iriu ni ne laa ilaaha illallaah jëlal sa Mariam Dado dina bàyyi sa maam Mamadou Moussa li ay mi ci door dooroon bee dina bàyyi sa maam Mamadou Moussa li mi ci door kan torodo torodo samba ngari jamatam ko danama isayil man sire samba dembali muhtar waliyan waliyaɓe serna sernaɓe dam kan dam kan dam kan torodo uyi damo damo damo damo dam kan jelal sanda te jaaraay bay ndaw musa jaara te lu sama nguraan bay ndey kumba ndey kumba may ma ñatte jaara ndaw musa jaara te lu sama nguraan bay aji ngoor ña ngay sa yaay aaroona mbay mooy sa baay yaay booy ndey kumba aaroona mbay aaroona mbay yow jëlel san international nga Mariam Dado dina bàyyi sa maam Mamadou Moussa ay mi ci dara korona be Mariam Dado dina bàyyi sa ma jobba gona bay fara maalar nga yaay yaasin yaay yayi yasin yayi bonso e yayi yayi e bebe mama oh awayo me mari yasin may sabbige dey mari cuun dey go jirim dey ala mi jilambay yayi eh. lande janay sayay won dey mari yayi nguda njaya gbadu njay dey mare dey mare yayi e tafa oh dey go jirim dey lay cuun dey go Ndey Mari jëlal sa ndam Mudu Mbay Bekaay ay sa baay yaay baayam maayam mooy sa yaay alaaji Umar Musa maayay baayam xalaat ma sin ba góor ma ko du lambat baay lam yi ji jaxeer du mbay fekkaay nee leen jërigo ne maam yow jëlal jëlal maayoo be sa mbay maam yow jëlal waaw di gaay faat mbaay jërigo be sa mbaam yow jëlal kaay

mu yaayu mu saw saw saboray baay ku dul joxe cër doom cër gi gi l'international ga doomu yaayu mu saw doono godo adama ise iliman tire samba de mali muhtar waliyat waliyabe serna serna be Seex Saaro ndax da jay masar gene geyi masar dudu geyi masar masar yaram jewe yaw sesar ndaxte geyi masar yaw salaam abdou karim ay baayam yaay ndey ñangay sa maam kumba joor yaayam joor samba yaayam kenn gënu laa nekk ci réew mi ñu ne salaam aji ndey ñang mooy sa maam ab sa kumba lawbe kumba lawbe kuri jëli naa itali ci ngana ko marmul Ousmane sigi paate sambala ganjuleen doonu sire sa kër maam ba noppi doon setu gooñ demba daaru daw gooñ maa samba demba lay gooñ gooñ mi daw looyaan gooyaan mu dab la nangoo lay la salaam jàllo mu ñëw jërëjëf gaay salaam kontaan nañu trop bég nan di rafetlu bu baax a baax émission bi jërëjëf jërëjëf di la wax rek na la jërëjëf bu ñëpp defee nii mm-hmm. léegi mu yaatu di nuyu waa Italie